salaamualeykum Aydara Chérif. yegg si nga waaw yegg si naa Aydara macha allah ñu ngi ziar bu baax yoon bi xatul déedéet alhamdulilah yoon bi tubaarkàlla macha allah Aydara baarakallahu taqabbalallahu amin amin ya rabbal alamin amin macha allah ñu ngi ciy sant yàlla bu baax kay. alhamdulilahi rabbil alamin tafsir Abdourahmane ñu ngi lay nuyu ñu ngi lay ziara ñu ngi ndokkeel mbokku jullitu réew mi yëpp suñu Sénégal gi yal na fi yàlla dolli jàmm. amiin ya rabbal alamin yal na fi yàlla dolli sutura. yàlla na fi yàlla dolli naataange yàlla na fi yàlla dolli juboo yàlla na fi yàlla dolli bennoo ñu ngi ndokkeel réew mi yëpp dëgg la démb ca talaata ji ndokkeel nañu mboolem suñu xalif généraux yi ñaanal leen yàlla yàlla bàyyi leen fi ñu yàgg fi ànd ak wér ànd ak tal ndax réew mi rek a leen ñor waaye buñ ci jógee yi tamit gannaaw bi ñuy ñaanalee kilifa diine yi ñu ñaanal yàlla kilifa réew mi muy président Macky Sall yàlla sàmm ko yàlla aar ko yàlla wattu ko ba li mu bëgg ci réew mi yépp yal na ko yàlla mottalil ñaanal ko mbooleem gouvernement bi ñaanal ko mbooleem ñi nga xamante ni tamit ñoo ne ci réew mi ci wàllu opposition bi yàlla sàmm leen aar leen waaye tamit directeur de société yi ñaan yàlla yàlla sàmm leen Imam Ghazali dafa ne su ma amoon benn ñaan bu may ñaan yàlla di ko nangu mu doon benn kese kese kese kese dama koy ñaanal suñu njiitu réew ndax moom mi nga xamante ni moom la yàlla ba teg ci réew mi mu méngoo suñuy mbir kon nag fa tabaarakallahu di ko ñaanal yàlla sàmm ko di ñaanal préfet yi nekk ci dëkk yi di ñaanal mbooleem ñi nga xamante ni ñooy gouverneur yi adjoint gouverneur yi mbooleem ñi nga xamante ni ñoom ñoo saytu mbirum réew mi ba ci ñi nga xamante ni ñooy wàllu police bi wàllu gendarmerie bi wàllu militaire yi wàllu sapeur pompier yi ñëpp ñi nga xamante ni rek ñu ngi ci réew mi yal na leen yàlla sàmm. amiin yal na leen yàlla aar. yal na leen yàlla wattu ndax ñun Sénégal rek la ñu am fii la ñu juddoo fii lañu ñu yaroo fii la ñu màggee fii la ñu bëgg am suñuy teraanga te bu ñu génnee àddina fii lañ ñuy denc kon nag ñuy profité ci weeru koor gi di ñaanal mboolem couche peuple bi yëpp yàlla sàmm leen yàlla aar leen tafsir Abdourahmane tey tey mooy ñaareelu bisu koor gi mhm. di bisu àllarba ñu jox la nga nuyoo ñu dugg nag léegi nag ci thème bi nag bismillah macha allahu alhamdulilahi zil manni wal fadli wal ihsan wasalaatu wasalaamu ala ashraf alxalqi sayidi alawalina wal axirin sayidina muhammadin wa ala alihi wa ashaabihi wa xulafaihi wa man ihtada bi hadiyi ila yawmi ddin asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu. waaleykum salaam ñu ngi lay nuyu. jërëjëf fa tabaarakallaahu di nuyu waat uh, imaamu jumaa ji suñu wayjur imaam. Mawlud Sow ak mbooleem waa jàkk ji yëpp fa tabaarakallaahu ñu nuyu leen ziyaar leen ndokkeel leen nit tey ci ñaareelu fanu koor gi. Mm-hmm. Chérif defe naa ni dañuy daal di ñëw rek dugg ci waxtaan wi. Mm-hmm. ndaxte démb wax nañu nit ñi fi ñuy jaar. te suñu waxtaanu ren nag dafa xaw a doy waar ndax dafa yaatu yaatu goo xam ni fi nga wax ni nañu fa jaar incha allahu bu fekkee ni jaar nañu fay bu ñu yàlla mayee ba ñu jaar fa dina doon waxtaan wu am solo waaye waxtaan yépp nag am na njëriñ ci nit ñi waaye jàpp naa ni bii moom dinañu ko soxla nañ ko moment bi mu dikk soxla nañ ko ndax sëy yi dafa bari problème ba nga xam ni bu ñu ñëwee rek dañuy daal di dugg ci waxtaan wi Chérif kàddu gaa ngi noonu jërëjëf alhamdulilah léegi tafsir xam nga bala ñuy wax sëy li nga wax labat dama bëggoon laaj nit ki kan la war a labat naka lay labatee ndax ba ngay labat tamit da nga bëgg sëy ak moom mu nekk sa soxna ci farata yàlla ak sunnas muhammad sallallahu léegi nag yow góor gi yow kan nga war a takk ki ngay labat est-ce que war nga koo takk yow soxna si ki lay labat est-ce que war nga sëy ak moom yooyu yëpp defe naa ni lislaam am na ci gis-gis te defe naa ni diine gi lu ni ma ko xalaatee déedéet ay textes yu yàlla teg la defe naa ni nit ñi war cee tënku tafsir Abdourahmane loo ñu indil tey macha allahu shérif fa tabarakallahu ah laaj bi am na solo ñu jéem ci suñu kem kàttan mooy nit ki saa bu jógee ni dafa bëgg wuti soxna war naa xam ndax diw mii mu bëgg wuti soxna ndax lislaam may na ko diw mii doon soxnaam am déet defe naa loolu nga laaj ndaw si it saa bu góor ñëwee ci moom bëgg ko soxna ndaw si ci boppam war na xam ndax lislaam may na ko mu sëy ak kii am déet defe naa lool mooy laaj bi mooy laaj fa tabaarakallaahu yal na yàlla fay la defe naa ni nit ki daal bu fekk demul jàngi alquran wala mu laaj ki xam war a gula jóg rek sax naan dama bëgg soxna diw wala diw ndax alquran daf ñoo am ñu mu ñu tuddal ni ñu ñii mënuñoo doon seen ay soxna boo demee ci suratul maida suñu boroom subhanahu wa mu ngi wax xurrimat alaykum ummahatukum a ah, suratu mu nga ca suratu nisaai mooy xurrimat alaykum ummahatukum wa banatukum wa axawatukum wa ammatukum wa xaalaatukum wa banaatu laxi wa banaatu luxti wa ummahaatukum allaati ardaanakum wa axawaatukum min alradaacati wa ummahaatu nisaa'ikum wa rabaa'ibukum allaati fi xujuurikum min nisaa'ikum allaati daxaltum bihinna fa in lam takuunuu daxaltum bihinna falaa junaaxa calaykum wa xalaa'ilu abnaa'ikum alladiina min aslaabikum wa an tajmacuu bayna luxtayni illaa maa qad salafa inna allaha kaana gafuuran raxiima sadaqa allahu alcaziim Chérif suñu borom subhaanahu wa taala mu ngi ñuy xamal ñan ñoo araam ci ñun gis nga nag yow miy seetaan émission bi di déglu boo mënee enregistré enregistreel boo mënee jël sa bic di noté noteel xamal ni fii ku ci bokkul rek mën naa doon sa soxna bu dee góor nga fii ku ci bokkul rek mën naa doon sa jëkkër bu fekkee jigéen nga fan la borom bi subhaanahu wa taala tàmbalee bi jiitu mooy ummahaatukum seen yaay yi bu nee seen yaay yi nag mooy nit ki mënula sëy ak yaayam sa rakku yaay wala sa magu yaay bi bokk ak sa yaay ndey ak baay mënoo sëy ak moom sa rakku yaay wala sa magu yaay bi nga xamante ni bokk ak sa yaay benn baay mënoo sëy ak moom mooy sa tànta sa rakku wala sa magu bi bokk ak sa benn baay wala ñu bokk benn ndey wala ñu bokk ndey ak baay xamal ni kii mënu leen a sëy loolu moom na teel a leer ci nit ki beneen bi mooy sa yaayu yaay mënoo sëy ak moom. muy samaam samaam. samaam yaayam mënoo sëy ak moom. sa maamu maam yaayam mënoo sëy ak moom ummahatukum ñoo ñëpp dañ ciy dugg sa yaay day dugg sa yaayu yaay day dugg sa maam day dugg sa maamu maam day dugg sa maamaatu maam bu ñu ko doon topp ba ca maam aadama xam nga ñooñu ñëpp sax du ñu doo fekke seen dund waaye bu ñu doon topp ki jur sa yaay ku ko jur ku ko jur ba ca maam aadama mënoo sëy ak moom mm-hmm. foofu mënoo sëy ak moom beneen bi mooy ñi nga xamante ni ñoom la ñuy wax ummahatukum mooy sa yaay sëram sa sëru yaay sëru sa sa sëru yaay ñu ñëpp mënoo seeg moom mooy ki bokk ak sa yaay ndey baay moom la ñuy wax shaqiqa ki bokk ak sa yaay benn baay ki bokk ak sa yaay benn ndey mënoo sëy ak moom sa yaay ki nga bokk ki ki sa yaay nga xam ki mu bokkal benn ndey yaayam mënoo sëy ak moom yow yaak sa sa yaay ak sa tànta ci sa yaay la par exemple ma joxe misaal mu gën a gaaw faatu mooy sa yaay faatu mii di sa yaay moom ak ndey mii ñoo bokk benn baay waaye bokkuñu yaay yow mënoo takk ndey mënoo takk yaayu ndey est que xaw ma yaa ngi yéen a ngi may dégg am déet bu ñaareel bi mooy banaatukum alquran nee na seen doom yi nit mënula sëy ak doomam Chérif xool léegi Sénégal télévision yi xoolal journaux yi bés bu jot nga dégg diw dañu ko fekk ak doomam diw doomam nàngam nàngam sa doom mënul sëy ak moom waaye sa doom boo mënul sëy ak moom sa doomu doom mooy sa sa doomu doom sa doomu doomu doom sa doomu doom suufe lu mu jege jege jege mënul sëy ak moom kon nit ki mënula sëy ak papaam waaye papa na xam ni mënul sëy ak ak doomam tey Chérif am na leneen lu am mooy man tafsir man ak Idrissa Gay maa ngi koy ziyaar sama mag la di sama sëriñ ñoo bokk fa tabaarakallaahu mu doon sama mag ñu bokk man ak moom Idrissa Gay mënul takk sama doom man aussi mënumaa takk doomu Idrissa Gay kon loolu it kii dem di labati soxna na ko xam na xam ni ni mu araame ci yow nga sëy ak sa yaay noonu la araame ci yow nga sëy ak sa doom mais noonu la araame ci yow nga sëy ak sa doomu frère waaye yow jigéen jiit xamal ni noonu la araame ci yow nga sëy ak sa frère u papa wala nga sëy bu sa frère u bu bokk ak sa papa ndey ak baay baa mu bokk ak sa papa benn baay baa ñu bokk benn ndey mooy banaatukum bu ñetteel bi mooy axawaatukum dafa araam bu ñu nee axawaatukum nag mooy sa sœur dafa xaraam mënoo sëy ak moom bépp sër boo xam ni yéen a bokk ndey wala ngeen bokk baay wala ngeen bokk ndey ak baay yéen ñaar mënu leen a sëy foofu nag am na benn sew-sew bu fa am hmm. man ak yow Chérif ñoo bokk ndey ak baay sama doom góor la sa doom jigéen la hmm. xam nga sama doom sa frère doom la hmm. mais mën nañoo sëy sama doom man yow ñoo bokk ndey ak baay man am naa doom bu góor yow nga am doom bu jigéen sama doom bu góor bii sa freeru doom bu jigéen la sa doom bu jigéen boobu mook sama doom mën nañoo sëy kon sama la olof di wax ni moo xaraam mais suñu dagan na hmm. da nga naan suñu ñaari papa ñoo bokk ndey ak mën ngeen a sëy mais man ak moom ñoo bokk mënu leen a sëy kon sama moo xaraam sama moo xaraam waaye suñu suñu moo dagan kon maa ngi woon ci axawaatukum sa sœur hmm. gis nga sa sœur boobu nag mënoo sëy ak moom mais mënoo sëy ak doomam doomam mooy sa jarbaat olof dinay wax jabari baat jarabaati baat xaw ma nu mu koy waxee noonu olof dafa yàq wax bi sa jarbaat bi nga xam ne yàgg yaayam a bokk ndey ak baay baa ngeen bokk ndey baa ngeen bokk baay mënu leen a sëy mooy sa ñees kon book ñees bi mënul sëy ak tontoom pour mu leer ndax ka may déglu te du xam lan mooy jarbaat Chérif defe naa daal tey mën nañoo yemandi ci yooyu ndax waxtu wi jot na ñu xam ni bindu tey bi mooy nit ki ñan la war a denc ci loolu la ñuy lim li may wax nag du waxi kenn waxi yàlla la alquran la mu nga ca suuratu nisaa yi araam na ci nit mu sëy ak yaayam araam na ci nit mu sëy ak yaayu yaayam araam na ci nit mu sëy ak maamu yaayam araam na ci nit mu sëy ak doomam bu jigéen araam na ci nit mu sëy ak doomu doomam doomaatu doomam doomaatu doomam lu mu suufe suufe suufe doonte téeméerul doom la it mënoo sëy ak moom comme ci sa doom la jógee araam na ci nit mu sëy ak sëram foofu la ñu yem muy ñett yooyu ummahatukum banatukum axawatukum shérif kàddu gaa gi noonu nga tàggu mbooloo mi xaali Ousmane de dafa naa leer moom mu ngi yem ci naññ mhm. yal na yàlla barkeel li ci des amiin yaa rabbal yal na yàlla aar amiin yaa yal na yàlla sàmm amiin yaa rabbal sëy yi nag mhm. dañu gis ni tey dafa am problème mhm. moo tax toujours rek pour relancer ko dañuy indiwaat toujours li alquran wax lu sunna si yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax yàlla defal nu ñu xéewal nag tafsir Abdourahmane di tey ñëw di suñu kan kon cër bi yëpp yàllaa la ko jox nga war a ñëw leeralal ñu ko waaye nag leer nag li ma ko waxee mu ngi yem ci naññ tey nag sëy bëgg nañ ko leeral ca origine bi kan nga war a jël ak naka ngay jëlee nag soxna defe naa ni temu suba bi bu ñu ñëwee dañuy ñëw nag kan nga waral a jëli jeexagul ñi nga mënul jël. Ah. jeexagul. ah jeexagul déedéet kon suba dañ koy yegg moom kay kii topp émission bi. nañu topp rek. fa tabaarakallaahu bu xësee xam ñi mu mënul a takk. Mhm. ku bokkul ci ñooñu rek mën na leen a takk. léegi nag ñu wax ko fu muy jaar pour takk. kon nag yàlla nañu yàlla boole nangu. amiin yaa rabbal aalamiin jaahi rasuulillaahi. sallallahu alayhi wa sallam yàlla bu mu nekk suñu mujj daje. amiin yaa rabbal di réew mi yëpp yal na yàlla barkeel li ci des wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu tafsir abdourahman bi mouhammadin wa bi bintihi wa bi baaliha wa bnayhimu sibtayni alaami lhuda wa bi sahbihi wa taabiina lahum fahum saadaatuna ahlul makarimi wan nada xaali ousmane bu suba jàmm incha allah bu suba incha allah jërëjëf jërëjëf macha allah jërëjëf ay dara kon ñu def